jërëjëf mbokk yi ànd ak ñun ki seen Info tey jii ci altine ji réewum Sénégal xëyee ab tiis ñeel accident bi nga xamante ni moom moo am fii nii ci diwaanu Euh, ndand ndax à 3 kilomètres de ndand rek foofu la accident bi daal di am foofu nag ab camion bu nga xamante mu ngi jóge woon euh, bu nga xamante ni euh, mi ngi jóge woon ci diwaanu Ndakaaru minicar boobu nag amoon fukki nit ak juróom-ñeent waaye itam malheureusement fukki nit ak benn daal ci l'accident bi ñoom daal di ñàkk seen bakkan mbir mi nag nekk mbir mu tiis bu nga xamante ni daanaka métti na lool ndax itam chauffeur bi nga xamante ni moo doon dawal minicar bi ñàkk na bakkanam ni na noonu itam ka nga xamante ni moo yoroon camion bi ni ki noonu moom moom itam ñàkk na bakkanam waaye nga xamante ne ni moom lañ dénk wàllum dem bi ak dikk bi moom itam jaar na fi waaye nag jural foofee ca diwaanu ngir xool yi am ay gaañu gaañu eh, mi am na ci itam juróom nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu yóbbu nañ leen foofee ne ca l'hôpital bu Louga am ci ñaar ñu nga xamante ni yóbbu nañ leen itam ca l'hôpital régional bu Thiès lu ci mën itam daal accident bi métti na loolu ñun itam ñu ñëw rek waxtaan ak ña nga xamante ni peut-être mën nañ ci andil ay leeral ci l'accident bi ni mu demee waaye laata boobu rek jaal ñi nga xamante ni ñoom la seen mbokk daal di génn àdduna ñaan nit jëlee ay gaañu gaañu ñoom itam ñu daal di jug dem jël seen mbokk kon aada bu ko defee ñu dem un peu dugg ci biir xool situation bi ni mu demee. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Abdou Ndiaye laa tudd nekk président regroupement chauffeur bu département bu Kébémer waaw. tey jii nii ngeen Euh, waaw tey de wax dëgg yàlla Sénégal yëpp ñoo xëyee ci tiis bu mettee méttee métti rek di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un diggante Mbaakaloo la ak euh, Palmeew fii la accident bi amee mu nekk aksident bu metti lool lool lool wax dëgg yàlla tey jii bu ñu xëyee waaw moo fi am tey jii. Mm-hmm. naka la mbir mi ak bon benn minikaaru Cheikh Chérif la ak benn camion. Mm-hmm. ñoom ñoo mbëkkante en face. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ba am ay bakkan yu bëree yu si loru wax dëgg yàlla waaw. fan la minicar bi jógee. bi mi ngi jóge woon dakaar jëmoon Thiamène waaw camion bi mi ngi jóge woon côté Louga jëmoon côté Dakar waaw. Euh, bon li ñu jotagun ci sappoor daal nee nañ am na onze morts huit blessés waaw loolu lañ jotagun ci sappoor waaw. waaw bon jàngat bi ci am kay daanaka mooy bi may wax rek man toujours moom la ci Sénégalais yëpp am bon damay wax ni toujours accident bu amee rek euh, nañ xool cause bi lan la cause bi nag tey dama naan tort partagé la parce que moo dañ ni chauffeuru bi moom moo doon doublé moom moo doon duble te sante Cheikh bi ñëw yàlla dogal ñu tasante ba li ci am am ci kon boobu dèjà dama naan toor boobu ci ci tooru chauffeur bi la mais nag yi tamit wax dëgg yàlla vraiment suñu tali yi dafa xat trop trop trop trop ndax euh, oto yi bari nañ oto yi màgg nañ léegi te oto yu mag a fi nekk mais tali yi fa mu tolloon ba léegi fa la tali toll loolu daal ñoo ngi koy wax autorité yi ni vraiment vraiment tali yi moom xat na trop trop trop trop waaw lépp luñ ci mën a dimb daal tali yi moom xat na wax dëgg yàlla waaw. waaw non euh, si looloo jaadu nañu di ko xool. mais man toujours li may wax mooy man damaa jàpp ni euh, accident même bu ñu xoolee ni ñuy joxee permi yi tamit euh, ja bokk na ci war nañ koo xool waaye man jàpp naa ne accident yi parce que chauffeur camion bi ñu moo doon doublé du xale du xale comme du xale dèjà kooku kon jàpp naa ne nuñ même nuñ ko joxe permam rek war naa xam ni père de famille la yor na njaboot yor na nangam yor na nangam. moom itam nu mujjee mi ngi dund bon ci li sappoor wax am na ñu ni mi ngi dund mais li ñu ëpp daal ñu nee nañ ñaari chauffeur yëpp dee nañ moom waaw. tey jii nii maanaam fii nekk bërëb bu nga xamante yenn saa daf yi am est itam ci itam ñu gën a renforcer li nga xamante ni moom moo di waaw wax dëgg yàlla lieu bii moom lieu bii moom wax dëgg yàlla li muy am accident bari na trop trop trop trop yaakaar naa ni année passée war naa mat ay at yu bari am na accident boo xamante ni plus de ay quarante et quelques morts amoon na fi te ci même lieu la wax dëgg yàlla lieu bii moom bari accident trop trop trop moom jaadu woon na moom ñu am fi ay war a donte day am benn post bu fi am sax ñu am ko fi wax dëgg yàlla jaadu woon na fi moom mais li ñu am na trop. beneen bi tamit euh, tali xar bi ci yooyu yëpp responsabilité état la xam nga garab yi dëgg yàlla tey jii même même même minicar bii. minicar bi même bu bu éviter woon camion bi ba mucc ci tamit ci kaw garab gi lay dal parce que wax dëgg yàlla diggante tali yi. tali fi tali bi yam ak garab amu ci fenn foo xamante ni mat na deux mètres daanaka presque ay un mètre cinquante la wax dëgg yàlla looloot wax dëgg xaw naa xaw naa doy waar loolu daal bon na ci état bàyyi xel bu baax baax a baax moom itamit macha allah jërëjëf. sëriñ bi ñu waaw euh, aada waaw ah, ni moom moo yoroon xam naa ko bu baax sama waay la suba rek daje nañ rek. turam dëgg naka la. Codé waaw. mais mooy tur bi sant bi kay laa xamul moom. nga xamul waaw daal moo. ñàkk moo ñàkk billaahi war na yàlla. yow naka nga yëgee mbir mi. mbir mi daal ah doy na waar rek moom. affaire bi moom bett la. suba gi ñoo daja def lépp. mais lu war am moom kenn mënu ci dara. loolu la yàlla tudd quoi. Mm-hmm. jàmbaar la te xam nga yaru ku baax la daal ku baax la daal amul benn problème moom ndax dégg yàlla ñëpp la amal jàmm ñëpp sëwër sëpp waaw benn kàddu daal foo dem benn kàddu daal ngay dégg waaw ku baax la moom ku baax la. am moom. non xale la xale la mais xam naa mi ak soxla nag xale la. waaw xale la suba rek ñoo dajale jasab suba rek waaw suba rek dagg est-ce que fanaanul Thiès daa mel ni la fanaan nag caameen caameen caameen la demoon. Ah, waaw mu ngi nekk ci. Euh, waaw côté Louga waaw. yéen nekk ay chauffeur tey jii nii mbir mi ndogal yàlla la wala itam jàpp nga ni daal moom daal. non ndogal la lu ya <coughs> ndogal ndogal la kenn mënu dara lu yàlla tudd la rek lu yàlla tuddul moom xam du am. waaw loolu lan jàpp daal. waaw saa su nekk nag accident day am ci bërëb bii nii lan nga yaakaar ni que moom moo war saafara mbir ah, yi daal doy na waar doy waar daal xanaa lu war a am rek lu war a am waaw lu war a am rek. wala. non tali bi waaw tali yi tamit ci la bokk. tali yi moom baaxul tamit tali yi waaye loolu. ak na waaw waaw loolu la de loolu la de. Mhm. waaw mais jàpp nañ daal lu war a am la lu war a am la waaw. ngeen bu ngeen ñëwee yóbbu man maa ngi ko yëgee jam ñaajo ko waaw. waaw te suba gi naa ko jasab waaw. Mhm. fekk gi mu may ko sóori 2000 foofu nga dëpp ñëwaat. waaw waaw may Kébémer laa jëm si woon. Kébémer waaw. ñu la ko jàll bu baax. waaw jërëjëf à 9 minutes la compagnie d'incendie et de secours de Louga a été alertée pour accident de la circulation sur la route nationale numéro de dans le département de Kébémer commune de Ndane plus précisément à la sortie du village de Palméo vers Ngaye Mékhé. Euh, sur les lieux, il s'agit d'une collision entre un minicar euh, en provenance de Dakar et un cabion qui venait de, de Louga, occasionnant ainsi un total de 21 euh, victimes, dont 09 blessés graves, euh, 02 blessés légers et malheureusement, on a dénombré euh, sur le terrain 11 corps sans vie. malheureusement. Donc pour la gestion de l'intervention, l'ensemble des autorités de la région euh, a été alerté. Ils sont dépêchés sur les lieux pour la coordination de l'intervention. Neuf ambulances ont été engagées, un véhicule de secours routier, quatre véhicules d'intervention légers et euh, des spécialistes pour la désincarcération euh, des victimes qui étaient coincées dans l'habitacle donc du, du minicar. Euh, présentement, l'ensemble des victimes ont été assistées et évacuées donc, au niveau des districts sanitaires de la place. Présentement, 0,1 euh, victime a été évacuée au niveau de l'hôpital régional de Thiès. Il y a 7 victimes au niveau de l'hôpital régional de Louga, deux victimes qui sont présentement au niveau euh, du centre de santé euh, de Kébémer. euh, la société a été assainie, les véhicules accidentés dégagés. Avec la gendarmerie, la circulation a été euh, Donc, euh, monsieur le gouverneur, madame le gouverneur, je crois c'est... Voilà. Mm, mm. Mm. Euh, pour, les... Au donc, on parle de 21 victimes, c'est ça 21 victimes, effectivement. Alors, euh, combien euh, de victimes euh, sur le et combien de victimes sur le

Oui, euh, le commandant parce... nous avait recommandé d'aller au niveau de la gendarmerie pour, récupérer, pour récupérer les pièces. Voilà, les avoir les infos, on n'a pas. Voilà, c'est ça. Et on a interrogé la, la base, j'attends le retour tout de suite. Quoi. D'accord, il faut voir s'il y avait. Euh, on surnombre ou pas. Euh, oui, on surnombre ou pas. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. D'accord. Euh... Oui. Bon, oui, monsieur le ministre, si vous voulez continuer à faire le constat, visiter l'état des, des, véhicules, après on va euh, à Kébémer, au centre de santé, euh, échanger avec les victimes, les deux victimes qui sont là-bas et les autres qui sont évacuées à, à Louga. Donc, euh, ils sont au nombre de sept qui sont euh, évacués à Louga. Nous allons euh, aller échanger avec eux. Euh, les corps sans vie aussi sont en train d'être identifiés. sur les 11, 7 ont été identifiés. quatre sont de la commune de Tchamen Kayor et euh, trois sont de la commune de Louga, précisément au quartier Kersering Louga. Donc vous, voulez constater de visu les dégâts et après on, va, va Voilà. buñ leen masawoo ci li xew tey jii nii eh, bu doy nekk dëkkandoo fii nii est-ce que mën nga ñëwaat un peu ci mbir mi. waaw ñoo ngi leen delloo nuyu fi am doy na waar ndax euh, benn accident moo fi am euh, ñaari oto yi ñoo tasante vraiment metti na lool ñu nag depuis sama tey ñu ngi fi euh, vraiment ñi fi jëkk ci lañ bokk am na 11 morts wax dëgg yàlla métti na fu métti yam ñuy sàkku nag suñ tali bi ñu otal ñu fi ay solution parce que tali bi doy na waar doy waar goo xamante ni duñ toog ñaari weer yu nekk te accident amu fi te xam nga ni loolu metti na chaque deux mois accident am fi fii choc bu ne am na fi choc bu grave bu ne am na fi route nationale Dakar Saint-Louis dañ cee war a xoolaat ay mesures ndax tali bi xat na xat goo xamante ni doy na waar lool et puis toj-toj xaw na doy waar lool mais buñ fi mën a def ay doo daan aussi dinañu gënal ndax duñ toog weer ba ak morom ji te néewuñu accident ah, am kii kii na fi. toujours dañuy daw ñëw di dimbali ñii euh, ñi xam ne ñooy accidenté fii vraiment ñoo ngi ñaan ministre bi fii xam ne ñëwoon na fi léegi nii di ko ñaan son excellence euh, Diomaye fay ñu jàppale ñu nun ñu mën a defale fii ay doo daan ba accident yi wàññi fi mais accident yi bari na lool ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. wax nga sànq maanaam yow daanaka bokk nga ci tinif ñi bi nga ñëwee euh, naka nga gisee mbir mi gaañu gaañ ak ak ni ñu metti na ba fu metti yem metti na ba fu metti yem. ndax wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw oto benee ngay gis ne ay xale yu ndaw ñoo ci génne vraiment accident bi kenn mënu la ko expliquer fu mu métti waay àgg ndax xam naa li ñu doon daw moo bëri ñaari oto yi li ñu doon daw moo bëri moo tax soog bi bi mu dajee mu métti vraiment tëccu nañ tëcc yoo xamante ni biñ leen di génnee yow am na ñoo xamante ni sax seen cër sax fi la des. kon amoon ngeen ay jafe-jafe pour génne leen. vraiment amoon nañu ay jafe-jafe pour génne leen dañoo mujj sax a yi ndax dañoo tasoo tasoon ci oto bi. ñoo ko daal di waaw parce que bi mu amee mhm. euh, sapeur pompier ñëw nañ fi aussi gendarmerie national police daak na corps yi bëri mhm. euh, ñëw nañ fi ñoo ci jàpp ba mbir mi mën a mën a mën a yemb comme nii quoi mhm. waaw. ñi génn àdduna fan leen leen yóbbu. waaw ñi génn àdduna nag après ñoom yóbbu nañ leen après ñun xamuñu fan leen leen yóbbu exactement mais am nañ ay blessés yoo xam te ne ñu ngi ñii ñoo ngi Kébémer aussi ñii aussi ñoo ngi Louga hôpital régional bu Louga waaw foofu lañ leen yóbbu lañ wax waaw waaw.

way way mais moor moom onze moor moom am nañ ko fi tey ñaan yàlla aussi mu yem fa quoi vraiment. yoon bi nii dañ daan si nemmeeku à chaque fois choc yi am guddi la daan doon. ñu mhm. daan nemmeeku ni chauffeur ñoo daan daw ba saaraan ñu daan dañ nelaw mais xamoo cause bi parce que bëccëg la xamoo cause ak accident bi dëgg-dëgg la la war doon. waaw cause bi nag exactement xaw ma ko carrément mais ci d'après. liñ jot a wax daal nee nañ camion bii nii moom moo doon génn taseeg oto bee. Ah, da doon doublé waaw dafa doon doublé quoi bi muy doublé nag ci génn ci la taseeg oto bee ne xam naa ñoom ñaar aussi liñ doon daw bari na moo tax euh, accident bi méttee comme ni mu méttee nii. amul kenn koo xam ne xam nga ko ci yow. bi tur sant bi naka la. man maa ngi tudd Tafa Mbow. dëkk Tivaouane. Mm-hmm. mais fii horaire bi départ di Thiamène. Mm-hmm. di dem Dakar foofu laa jàng métier. Mm-hmm. Euh, ki nga jàngal métier mi ngi nekk Jibi Ndiaye. foofu la langee. ñu koy wax Thiamène kooki warak horaire bi day xëyee Thiamène à cinq heures du matin dem Dakar bu demee Dakar après day windiku ñibbi si waat man sama oto nga ne maa yor DK double zero soixante a AH dama cee yem nii moo tax ma taxaw sama doomi day la chauffeur bu nangoo liggéey la chauffeur bu gëm li muy def. mooy chauffeur minicar bi mooy chauffeur minicar bi. chauffeur bu respecté boppam bu respecté li muy dawal nit ma laajee cause accident bi dañ ne ma camion bi dafa génn troisième personne xaw ma dafa nelaw fekk si ko cooto bu toy nii. mais nag ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ñu koy tamit famem yàlla jox leen xolum muñ ca xam ni bakkan bu mus dudd day mus dee deewu ndaw nag moom métti parce que les est jeune xale la judduwul. amoon na soxna amoon na soxna je crois que. Mhm. mais li ma man mën a wax daal ki nga xam ne moo gën a sës si moom mooy Pape Diop mais oto caameen la yor moom aussi oto ma nga ne boo ko introsé moom dina la tegal A ba Z waaw dina la tegal A ba Z mais man falaa jànge métier falaa lange xam naa famille xam ñëppam. moom Codé yéen ñaar maanaam est-ce que bi gisante yàgg naam yàggul. non non tout le temps dañuy gisee parce que man damay xëyee Tivaouane dem Kébémer bu ngoonee bu ma déggee ndékki ay 9h 10h ma génnaat dem Thiès. mi ñu ko moom moom Thiamène la dëkk waaw. a ah, ziar nañ leen bu baax hmm. euh, Pape Diaw la hmm. dëkk Thiamène hmm. euh, kii Codé Dieye lañ koy wax sama nijaay la xale la nag. Euh, sama nijaay la waaye jox na ma cër jox na ñëpp cër sax parce que li may wax moom la ñëpp di wax am na respect yaru na mën naa dawal xanaa lu yàlla dogal moom jàmmunu si dara lii ndogalu yàlla la te dañ koo tooñ ndax nee nañ dañ koo fekk si. mais yow naka nga yëgee mbir mi. waaw affaire yi boo marisé man bi may xëy moom dakaar la xëyee démb la gonte Louga fanaani dakaar mu xëyee yeb dakaar dañoo tasee man may dugg muy génn bi ma toogee tuuti lañ ma woo téléphone ne ma code dafa soge ay yéen waxtu ay ay booru 9h lan ma woo ma Codé dafa soge may leen soog nu mu demee noonu du daane oto de moom ñu ne ma ab camion la taseel ma ne moom tooñu ko de moo ko tooñ ñu ne ma camion beeg mbëkk ma ne waaw noonu la mën a demee. loolu yow foo xam ne mën naa dawal ndax man dama koy damay ànd ak moom jox naa yor na sama oto oto bi ma yor nii da koy indi Dakar di koy delloo normal mën naa dawal jàng na métier mi teey na yaru na du siggi xool nit. am na jom nangu naa liggéey. waaw. waaw loolu daal xam naa ko si moom. amoon na ay doom am jom bu yàggut barki amagul deux mois après tabaski lay doog a ceetal mhm. papam bi mu dee ak léegi amagul quarante jours mhm. waaw. moom mi génn àddina moom mi génn àddina nii amagul quarante jours bi mu bi mu faatoog léegi. Mhm. moom après tabaski la takk jabar matagul deux mois yàggul. gone gu am jom gu nangoo liggéey. ku yaru. ñeen di ay chauffeur itam fi ni nekk bërëb bu nga xamante ni yenn saa yi dafi am en tant que ay chauffeur ne sa sax jiw nañ ko ñu dénk dem beeg dikk bi jaar na fi ban message ngeen koy lancer. ah xanaa ñu góorgóorlu rek defaral ñu tali yeeg affaire yooyu rek te nag oto yi ñu bàyyi leen ñu daw guddi nag ndax xëy mi ñu xëy nii xëyandoo oto yëpp ubbeendoo ndaka oto yëpp fu mën di jóge ci àdduna bëgg a duggandoo ndakaaru même heure génnandoo même heure ah ban ko arrêté ak léegi naan accident yi dafa wàññeeku dafa gën a yokk man lool laa gis mais buñ bàyyoon oto yii di dugg guddi yii di dugg bëccëg dajee du am tali bi dana féex mais buñ xëyee suba 5 heures de matin mbooleem fu oto jógee ci Sénégal territoire lu Sénégal 5 heures de matin lañ leen di bloqué ba 5 heures ñooy leen avance. en plus que ça day yokku waaw ñu départandoo buuxante bi kenn ku ne njëkkantee dugg Ndakaaru boo naajee doo dugg ndax embouteillage xataay bi suñ bawoon nag oto yi guddi yi daan dem guddi yooyu bëccëg yi dem bëccëg ñuy voyager di dem ak dikk normal coow di jub waaw. waaw noo gisaguma ko moom nee nañ ma mi ngi hôpital nii man Dakar laa jógee maa ngi doog a dal ci maa ngi jëm nii Louga directement hôpital foofu lañ leen tant que sa tonton wala sa nijaay bi nga xamante ni moom la choc bi méttee lan nga na ma torop metti na ma wax dëgg yàlla ba ca kanam yàlla métti na ma lool ndax mel na ne man la wóor na yàlla ndax kooku kooku dun ñaar benn lañ kooku man ak moom liñ seq bari na bari na torop ndax amoon na sax problème mu famille seen waa kër man maa def samay affaire ak samay tiktak ba delloosi ko mais geddoon na seen kër ndax am jomam nekk si àll bi depuis deux ans nangu ta ñëw seen kër man maa def samay affaire ak samay tiktak ba fexe ba indiwaat ko waaw sama waay la del ku bokk si man la wër na fi di wax rek moo fi sës wax quoi ndax kii dañoo defandoo lépp barke Serigne Touba la dara ah. sama kër la gàmmoo mook sama soxna benn la jàngaluma ko métti nag waaw am na lu ma def si moom bu ma ko jox oto guddi jëm footo ak Kolda sor Kédougou fu ma mënti doon oto romb a sax ma ne kii di ñoo bokk mission bu ñuy dox koo de ah, yokkal sa tànk mu doraate ba mu jekk ni ma avancé ñu dem nga toog nga dem li muy dawal lay dawal du si wane wu du si tiirse ndogal nag ak app bu jeex nit mënu si dërëm waaw waaye kon moom yii mosu koo dal mosul. mosut am problème si oto mosut am problème si oto bu yéegee da nga ko xeeb lool waaye kaar macha allah bu defee cinquième nga ne raw waaw. lan ngeen bërki démb si màggalu Touba gi mu ñëw ba Touba woo ma téléphone ni ma instant bii kat maa ngi Touba waaye damay fanaan ba suba sama kër njaatige laa jëm Abdou Ndiaye benn waaye bu ko jëlee woon si magam yóbbu ko Touba ndax dafa nekk bañkat ay magam yëpp yor mbokkam yor. gisul loolu dóor waar kenn xamul lu ko lu mu am ak lu mu ñàkk dóor waar rek bañkat loolu rek waaw. maintenant nag gisee oto bi lan nga sentir. sama àdduna sépp a tukki sama otaa ngi ne Kaolack laa jóge fa laa yooroo nii ba ma faree ne ndékkiwuma lan ma woo téléphone wax ma ko. kon yow Kaolack laa jóge ni sama otaa ngi nii may doog a faree nii si dara. ki jóg si man kay gannaaw du mas a dellu si si këru àdduna ndax instant bi man mënumaa jàpp quoi si kanam la may jàpp kooku ba ma nekkee xale ba léegi ñooy nekk seen dëkk laa yoroo fa laa jànge alxuraan fa laa lépp waaw. ngeen di ay chauffeur accident yi bëri na est-ce itam maanaam ñu gën a aar kaaraange chauffeur si yenn saa dañu naan chauffeur chauffeur donc mais tamit tey jii mooy tali bokk ci. bi rek moo nekk. moom moom heure bii nii. mooy problème bi zéro heure bii ñuy éliminer moom mooy problème bi. sa Touba ak oto yëpp bu ñu xëyee benn saawa la ñuy def ñëpp bëgg a dem Dakar bëgg a génnaan ñibbi sa kër balaa heure bee jot loolu rek mooy problème bi compétition boobu kase waaw. man jàngat bi ma ci am jàngat bi ma ci am ma koy lancé président Diomaye ak euh, premier ministre bi bi nga xam ne moo yor wàllu dem beeg dikk bi suñ sañoon zéro heure bi ñu bàyyi ko bàyyi oto yi di daw nel porte quelle heure si ku ci gëmmentu di nga nelaw mais bu fekkee ne danoo bàyyi. zéro heure bi di téye oto cinq heures du matin oto yi bokk mission bu ñuy jox dem beeg dikk bi day xaw a difficile day créer embouteillage mais safar suñu leen bàyyee rek ak seen sago éliminer zéro heure bi ku sonn di nga gaare parce que bët xam na lu mu attan en plus que télé yi comme route national bi ñu ngi koy yaatal ñu gën cee taxaw safar yi tamit gën a respecté ñuy dawal ku ci sonn nga gaare safaru camions yi tamit aussi tamit ñu dimbali ñu ca xam ne ñoo bokk télé bi ñuy bàyyante xel boo sonnee yi nga ma xam ne da nga sonn nga droité fu baax dem tëdd nelaw sangu naan kafe xam nga wala nga naan ataay boo nga doxaat sémission mission loolu daal laay lancé appel